non attends également def de sorte que yéen seen i droit en tant que député que ça soit pas bafoué xam nga tey jii même boo leen amul premier ministre mais c'est un droit seeni question orale ak question écrite euh, gouvernement bi tontu si mais tontu wuñu si mais yéen aussi vous laissez faire amoo leen benn moyen pour imposer euh, le gouvernement mu topp leen si li ngeen bëgg bii nag moom duñ ko bàyyi te loo xam ne loi loo xam ne moo leen ko may xam nga gis nga gis nga gis nga jotaay bii ñu am nii hmm. lii may def nii mhm. bokk na ci li nga xamee ni mooy feddali mhm. exigence yi nga xamee ni à maintes fois ci barab yu bare bare bare def nañ ko jëm ci kanamu gouvernement wu Sénégal xam nga Sénégal li fi li naqari mhm. moo di que ni il faut que ñu wax moo di que ni nit ñi bu ñuy wax li war ak li ñu war a def interpeller gouvernement bi souvent malheureusement dañ koy bëgg a weccoog wax ju tekkiwul dara bu joo xamee ne day am sensation ñu jël ko def ko mu doon actualité par rapport ak li nga xamee ni mooy suñu exigence gis nga moo tax li tax man ma interpellé journaliste yi mhm. dama xam ni keroog bi Abdou Diouf namee def la cause de sud-africaine une cause nationale journaliste yi dañ koo ŋànkal seen bopp <laughs> bi ñu ko ŋànkee wëlbatiku et instituteurs yi ŋànk ka il a fallu moins deux mois pour que Sénégal yëpp xam Soweto xam la fa nekk ak la fa wër donc lim genre reviens toujours ci li nga xamee ne moo ñu boole ñun ñëpp gis nga man d'accord ma toujours ñuy segmenter cër yi yéen ñi yéen a war a def lii déedéet on est ensemble parce que bu ñu demee ba à la fin suñu xaalis rëcc dugg ci yoon yi mu war a dugg ñun ñëpp ay ñàkkandoo et dans l'œuvre de construction et la preuve reyante bi ñu mujj reyante ñi génn reyante soo siy génne politique yi c'est une infime minorité ce qui veut dire que ni am réew pour mu mucc il faut que citoyens yi nga xam ne ñoo yor baat bi di ko joxe acteurs yi nga xam ne à des degrés divers ñooy participer ci évolution mentalité et conscience yi ku nekk def le point def sa introspection wu bopp li nga war a def nga def ko ndax kat les chefferies africaines yu ñu am boo leen bàyyee may leen filaas benn seconde ñu def na ko su dul noonu man man naa d'accord ah si euh, reproche bi ñuy def euh, la presse et les médias en général bañ a jël li nga xam ni mooy peut-être intérêt euh, sénégal yu bëri ba di ko échanger avec des questions yoo xam ni mineur loolu dëgg la mais beneen bi aussi tamit il faut qu'on reconnaisse que ah monsieur le ministre l'opposition sénégalaise ne joue pas son rôle est-ce qu'il y a pas sax deux deux deux oppositions parce que celle de Ousmane Sonko ah nga xam ni jàppoon nga si combat bi loolu mais a pu quand même secouer le régime du président Macky Sall ba ba am loo xam ni peut-être euh, Khalifa Sall amu ko en tout cas l'opposition classique amu ko est-ce que yéen aussi waroo leen a xoolaat votre manière de combattre face au président Macky Sall. waaw xam nga gis nga yooyu yëpp mooy le mal sénégalais. Mm-hmm. yaakaaroo ni rek Babacar après plus de soixante années d'indépendance. ak liñ fi xeex yëpp. ak les années de braise yëpp. ak ñi fi dee ci nit ba ci 2011 2012 ña ci dee jëlale naa ñi mujj faatu fii yaakaaroon ne waroon nañu dépasé globalement à toute la classe politique nag que di toog di reyante ci ay liberté ak ci droit à l'information donc heureusement que ma foofu laa la bëggoon yóbbu foofu laa bëgg yóbbu nga poser le doigt sur la réalité de la gouvernance dans nos pays ndax gis nga njiit yi seen bopp ñooy suñu problème ñun ndax lii ngay wax nii yëpp ñu amoon njiit loo xamee ni il attaché de l'importance ci kàddoom mu nekk nit koo xamee ne bu ne gouvernement da dangay dem assemblée nationale dafay dem te du ko wàcc nga ni kon coow lii du fi mat bu fekkonte ni fruit con confrontation yu ñu amoon en 2011 mhm. autour de la constitution du Sénégal reyante gi ñu amoon ba ay seize et personne personnes seen bakkan des ci su fekkoonte ni ñu nekk ci nguur gi ñu ngi retenir leçon yooyu kon jàpp naa ne tey jii amaana duñ fi nekkaat xam nga li metti mooy et c'est ça aussi souvent l'erreur que l'on commet mooy que ni ñun ñu ngi woon ca xeexu 2000 ba wëlbatiku ñëwaat xeexaat ci 2011 ñu wëlbatikuwaat tey jii ñu ne 2017 ñu Khalifa Sall ñu nekk ca biir avant loolu Macky Sall 2000 2009 xaw ma nangam sangam 2008 ñu nekk ca biir wëlbatiku nekkaat ci beneen combat nekkaat ci beneen combat chaque fois. même débat bi ngay am respecter leen constitution bi li ngeen di diggee def leen ko mais toujours cette même catégorie d'hommes politique chaque fois li ñu lay wax ak li ñuy jëf bu ñu nekkee au pouvoir day mel na yàlla ak yaay donc donc lu po ab pouvoir opposition am doole am doole si mag moo xamee ne da ngay jëfe maa tey jaral na la nga wëlbati constitution wu Sénégal jaral na la nga jël sa ay nawle tëj leen kaso ci lu teguwul fenn ñii jaral na leen nga fomenter leen ay accusation yoo xamee ne mënuloo ko justifier su fekkente ni loolu mooy mode de gouvernance loo fi jàmbaare jàmbaare opposition mhm. tes résultat day doon yoo xamee ni résultat ba ngay am à la limite doo ko sax souhaité yow ndax doo doon résultat boo xamee ni conséquence bi mooy ay dee yu dul jeex ngay wàññi. te loolu mu la ci réew mi et ce n'est pas acceptable que chaque fois chaque fois que mu jëm war a jaral nit ñi ñu yeew seen bopp comme vous le disiez à l'Assemblée nationale ñu wëlbati ko ñu dem place de l'Obélisque Mamadou Diop yaa raxma yàlla na yàlla yokk leeram auto police jaar ci kawam mu faatu et depuis. Chaque fois, le combat de Mamadou Diop, c'est comme si un jeune Sénégalais ne s'est jamais sacrifié pour lool te ña taxoon mu dee ñooñu tey jii ñoo yore lenge yi nekk ci bopp réew mi bët bu rusul toj et c'est ça le vrai problème que nous avons au Sénégal mais ku la dégg ngay wax dafay mel ni musoo am nombo wala nga bokk ci gouvernement <laughs> ah. te bokk nga ci ñaar yoon bokk nga ci une première fois nekk ministre de ménagement du territoire et des collectivités locales ginnaaw gi nga yore ministre communication ak économie numérique. donc ñaari yoon ñoo ko nombal baat ci gouvernement bi. waaye ku la dégg ngay wax bu xamul woon Sénégal danaan kii opposition la mës a fare. wala boog xanaa li muy tekki mooy même boo nekkee ci gouvernement ni mbir mi tëddee tax na kenn moo yor cëggalu guy gi ba nga xam ni yow sax boo amee ngëm-ngëm war a tëralin doo ko mën a doxalal ni nga ko war a doxalee ak sa ngëm-ngëm. loolu am na si. te xëy na mooy loowu quotidien wu ministre yu bare ci biir gouvernement yi ndax dogal ci ni ñu archi ni ñu defalee suñu réew ci loxo président de la république la nekk am na ci ministre boo xamee ne xëy na nekkul intérieur wala nekkul forces armées li ñu def nii yëpp ak dee yi ci am yëpp xamul sax nu mu demee xamul si sax ndax bokkul si conseil de sécurité donc fekkewul fañ koy tëralee ak yu demee bu ñu ko defulee compte rendu du conseil des ministre du ko am mais Momar mais ñun ay sénégalais lañu. man nekk ministre warul maa tax nit bënn sama bakkan bi jaarale si buum fu mu ma bëgg a diri yóbbu ma fa. man nekk naa ministre et je au défi les sénégalais su fekkente ni jamono yi ma ko nekkee am na ci wala président la république bu mu mënti doon def loo na ma lenn loo xamee ni mingoowul ak charte yi nga xamee mooy réew mi ay kon question de choix la gis nga àddina nit ñi ñoo moom seen bopp ku nekk si ñun. yaa war a déterminer yow ndax lii ngay def nii yow la engagé wala engagé wala ndax fii ñu lay dugal mën nga cee continuer wala mënoo see continuer am na ministre yu bare ci réew mi ca jamono Ablaye Wade ak lu ko jiitu ministre démissionné la fi. sax sa wàll boobu démissionné waaw donc nga xam ne démissionné dafa am lu ko waral. non xam nga xam nga dafa am. loo xam ne am na loo waxoon ci élection locale ya. 2014. loo xam ne xajootoo woon ak Macky Sall ci déedéet déedéet déedéet parce que ko lu mel ni xamee non xam nga man na ba tuuma de gis nga moom sax jamono yi ma nekkee ministre toog na mu ne mais yow Cheikh Bamba gis naa ni yow yaa nga nekk ndar di ma sànni xeer rek ma ne ko monsieur le président yow no bëgg nga jël sa góor a sànni sama kaw bu man bu ma xajjee mbow du ma toppatoo xaj bi borom xaj bi laay waxal te maa ngi continuer di nekk yeggoon foofu non gis nga man ngaa yàlla suturaal na ma ba aw ma woon problème communication ak moom waaw jàpp naa ni rakk la ma jàppe woon. donc loolu bokk na si bruit bi. non entre entre entre autres li Mansour Faye fekk nga nekk yow maire de Saint-Louis Mansour fay ñëw bëgg a nangu sa place. si déedéet du loolu sax parce que loolu sax day raccourcir débat mais le fond mooy au début bi ñuy xeex contre le régime de Abdoulaye Wade dañ ni dañuy àndandoo ku nekk am nga sañ-sañu def sa candidature waaye nag buñ ci génnee. nañu ngalawaay ñun ñëpp ñu àndandoo ki jiitu ñu jàppalante jàppale ko ngir Sénégal jëm kanam c'est un partage du pouvoir et un exercice collégial de ce pouvoir la donte président de la république bi moo yor mbir mi ndax ñun acteurs politiques yi xam nañu ni bu ñu àndee doon benn jóge ci opposition ak ni ñu amee doole ci opposition si on s'entend bien sur le développement du Sénégal mën ñu yokki Sénégal yóbbu ko fu sore sore sore loolu mooy principe bu alliance yi nit ñi def en politique. mais Sénégal ko fal ku nekk day daal di bëgg daal di man la ñu fal bëgg wëlbati nit ñi def leen leneen lu dul ay partenaires ci mbir mbir mi man jàpp naa ni suñu engagé woon ci principe ya na mu wàññee woon mandaa ni sama mandaa juróom-ñaari at la dama koy def juróom du ko mos a changé kàddoom muy benn la mu engagé woon. nii dina def une gestion sobre et vertueuse ngir respect bi ñu am suñu diggante ak ku nekk ni ngay téye sa morom dina téye réew mi ci reddition des comptes téye réew mi ci une gestion transparente téye réew mi ci li nga xamee ni le le parti ne jamais premier par rapport à la patrie yooyu mooy yi nga xamee ni mais ànd ci nawle dafa métti parce que bu fekkee da ngay ànd ak Momar te Momar di la wax dëgg am ma paate bu nekk sa côté ba bu Momar waxee ba pare bu génnee mu ne kii moom dafa añaan dafa soxor yow la ñu fal yow yaa nekk ci bopp réew mi et cetera cette forme de chefferie africaine archaïque yooyu laa ni mooy yi nga xam ne moom méngoowul ak développement gis nga suñu bëggee nit ñi dañu xamul ni ñuy àndee man Cheikh Laye daf ma daan wax ni boo demee ba toll na sa baay da nga war a wut koo xamee ni xam-xam bi nga am moom la am li ngay bañ moom lay bañ te li nga yor mën na ko yor à place nga ànd ak moom nee na kookee du la jey. mooy li Abdou Fall naan àndu nawle. waaw mais àndu nawle googu il faut pas que mu doon théorie rek. il faut que nga jëmmal ko nga jëmmal ko. te néew na ci Sénégal ñoo xamee ni bu ñu àndeeg nit dañ koy def àndu nawle te àndu nawle dafa jafe ndax ay nawle rek ñooy ànd liggéey pour jariñu jariñu askan wi. parce que ay nawle bu ñu àndee di nga rus sa morom di la gis ngay jël ci alalu réew mi. di nga rus sa morom di la gis ngay wax naan waaw ci kaw ni déet ci suuf te gars yi xam nga ni seen forme de pratique politique ñoom politique dañ naan demul te malheureusement loolu mooy naxe gu rëy nga xam ne moom la ñu samp Sénégalais yi. maanaam a jëm alaxira li ñuy wax gëmuñ si mais bu ñuy comparer parce que acteur majeur nga woon si 23 euh, juin ah eh, 2011. wax na fa d' abord est ce que boo doon defaat loolu euh, le même geste di nga ko defaat. takkaat boppam assemblée takkaat sa bopp si miiru as euh, grille assemblée bi. peut être pas dans la am na ñu la ko ñu la ko reproché un peu. non cet extrémisme là bi nga xamee ni. au contraire. Ah. gis nga nit ñi dañoo war a sant yàlla. bi ma defee loolu. parce que extrémisme moo doon def yi leneen lu dul loolu parce que fii jaayuma kenn sama bopp laa jaay. joxewuma kenn sacrifié wu ma kenn sama jëmm laa sacrifié. et le message et un message subliminal et un message boo xamee dafa di bataaxal boo xamee ni adressé wu ma ko classe politique bi. doomu Sénégal yi laa ko adressé dama jël symbole assemblée nationale muy baatu réew mi yëpp toog foofu ma gis ni sama baat dañ ko yeew ci biir fi ñu naan baat yi libre na te sénégalais yi yëguñu ci dara il faut que moo defar mbir moo xamee ni dina yee seeni xel ak seeni xol que ñu xam ni dëgg-dëgg barab bi ñu jàppe woon ni fii mu ngi dox doxul fii ñu jàppe woon ni nit ñaa ngi fay liggéeyal Sénégal ndekete ña fa bëgg liggéeyal Sénégal jatang nañ leen tënk nañ leen et ce message là est ah, jàll na bu baax a baax a baax gis nga. est-ce que du loolu mooy wéy ba léegi. ah oui ba léegi. oui de de Momar Momar loolaa la ma yokkal sa question bi dama ni. et malheureusement boobu boobu en 2011 il y avait pas de mort. kenn kenn faatu aussi alhamdulilah mais bii nga xam ni il y a eu 13 morts mais yow sa façon combat bi lan moo si changé. comparé parce que ba léegi yaa ngi opposition lan moo changé sa façon combat 2011 de 2021. xam nga 2021 bi 2011 Sénégal yi xam nañu ni ma def te boobaa aussi la presse a joué un rôle bu am solo ndax ñoom ñoo relayer information bi. ñoom mamar yi nga xam ne ñooy analyste politique yi <laughs> jox sénégalais yi di ko càmbar euh, euh, lecture bi ma bi li ma bëggoon ñoom ma yóbbante leen ko ñoom ñuy tasaare ko ci biir askan wi et ça a été vraiment benn benn benn synergie yal na yàlla yokk leeru Seydi Lamine Niass ak euh, mag yu baax yi ak ñoom mamar suñu doyen yi ci nekkoon yëpp te def ci ay analyse yu am solo waaw waaw waaw vraiment vraiment c'était c'était formidable et ça faisait plaisir d'être en sénégalais parce que ci xel ak xalaat la ñu lijjantee ndax euh, benn nandite moom am na solo loolu ci réew. moo gën camion ngaaka. déedéet déedéet ma ni camion ngaaka ndax damay bañ gaa yi dëkkaloo foo dëkkal da nga naan rek benn nandite bu yeewu moo gën ay nandite yuy nelaw moo gën camion nandite yuy nelaw mais le reste les gens comprendront mais li ci am solo. <laughs> ba nga xamee ni moom la ñuy wax tey jii suñu combat bi hmm. bi ma yeewoo dégg xibaar bi ñëw. Hmm. ma ngi ma fekk ndar man dama ni tekk. ndax mag du dugg si lu mu xamul tant que l' affaire était une affaire privée man jàpp naa ne Cheikh Bamba Dièye ça ma me concerne bis bu ko indee assemblée nationale nag lañ ma ci dugal alors je suis devenu ma daal di nekk nit koo xamee ne nag dafa fas yéene jouer rôle député am gis naa tooñ bu bon bu ñaaw boo xamee ni ñun sénégalais yi sous nos yeux def nañ ko xalifa Sall. benn bi si njëkk nekk na député am immunité parlementaire am ñu maintenir ko si kaso bi bañ immunité am ba pare dellusiwaat pour dindi immunité en toute impunité te loolu dans les annales politiques sénégalaises musiba naaru lay la parce que am réew su mënulee protéger intégrité wu citoyen réew moomu du réewu dara muy benn donc am nañu un précédent mmh. ñu ñëwaat muy deuxièmement ak précipitation ma gis ab juge procureur interpellé juge jus juge d'instruction kooku deful enquête deful dara daal di bind benn lettre bu gaaw a gaaw ba dax ka assemblée nationale pour que ñu lever ko immunité parlementaire am alors que ni un juge d'instruction dafa war a instruire ab dossier jël temps wam parce qu'il s'agit d'une personnalité de la République et on ne peut pas pour l'histoire mm-hmm. taxañ affaire yi ndax tëj benn doomu aadama bu deful dara musiba naaru lay la waaw donc bi ñuy gisee affaire bi précipitation bi ñëw d'abord ñun ñu war a nekk non inscrit yi membre de la commission ad hoc du comité ad hoc ñu daal di bañ daal di ñuy tànnal de force kenn ñu xeex ko xare ko ba ñoom ñu revenir à de meilleurs sentiments ma dem fa en tant que membre de des non inscrits bi ñu duggee ci biir gis nga article yi règlement intérieur bi dafa wax ni yow député bi li tax ñu samp comité boobu dañ ne la da ngay instruire dossier bi maanaam dans les termes sans prendre sans jël forme juge d'instruction ñun dañuy instruire dossier à l'intérieur de l'Assemblée pour forger la conviction des autres députés si ndax war nañu yëkkati immunité parlementaire wala waruñu ko yëkkati il faut ngeen am pour mën a lever absolument te nit ki mënuloo jël koo xamee ni démb daf la wax ni la kat diw mi amul immunité parlementaire am dem ba sa biir weddi doom ministre ni la bañ koy jàpp du woon député ba Seck Sarr mu weddi kàddoom maanaam ñaari acteur yoo xamee ni ils ont ils ont menti sur un dossier wax nañ lu nekkul dëgg ci dossier buy lever immunité parlementaire am bu ñu la bindaatee beneen kayit di lever immunité parlementaire am ku ndëbi rey sa maam <laughs> boo gisee lu ñuul da nga war a daw donc man day munuñoo muusa waane ba ma gëm ñaar ñooñu li ñuy wax loolu moo tax à l'intérieur ci biir commission ba man leen nag foog ñu instruire dossier bi ni ñu koy instruire mooy dinañu woo ay experts ñu wax ñu nan la ñuy defee prélèvement woo plaignante bi soo koy mën a woo député bi woo ku ñu mën a woo forcer suñu intime conviction gars yi xam naa ne loolu jommal na leen ndax gis nee na ñooy gisuñu ko ci règlement intérieur yi mais ab député bu ñu ko joxee texte de loi da koy interpréter da koy dundal da koy jox volume pour mën a forger conviction ngir ëllëg mu bañ a juum bu ma gisee nag loolee lépp nag ñu bañ ko boole ko bu jiggi dayo et je me dis a anguille sous dégg naa sax li ñu leen envoyé note bi ñu leen euh, bi amul benn justificatif boo xam ne sax mënoon ngeen si basé wu wala non mais dafa xam nga gis nga gis nga gis nga gis nga dañoo wax ko ngeen ne non non xam nga gis nga gis nga gis nga nit ah. nit bu ñu nekkee ci réew il faut que sénégalais yi gëm ni lii dëgëral réew mi du président de la république kese li koy dëgëral mooy ab député def waru garam ab journaliste bañ ko ko jënd def waru garam ab juge bañ ko ko xoqatal def waru garam xam nga ma la bu ko defee ku nekk bu toogee ci say prérogatives assumer ses responsabilité dina tax sa nawle même bu bëggoon jàll def lu jaaduwul dina am ay limites objectives yoo xam ne bu ëllëgee mooy musal doomu aadama mais ñun si suñu bopp ñun sénégalais yi y compris le gouvernement bi nga xam ne mooy mooy mooy yore réew mi am nañu une responsabilité historique tooñ nañ fi ay doomu aadama te gis nga euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na suñu boroom du du du du seetaan ñaanu ko tooñ donte walaw bi kaafirun nee na donte bi yéeféer la du ko yéexal te réew mi tooñ nañ fi ay nit te am réew kenn du ko samp ci tooñ gis nga un nom deta nacteur politique moo tax ma wax leen leen faut que yi jàng politique ni ko Cheikh Ablaye doon waxee nee na mooy sàkki pexe yu dagan chaque mot daf ko jox baat sac ay pexe l'énergie la réflexion la stratégie ay pexe yu dagan nag yu légal yu lew ngir jariñ askan wi. léegi euh, il est vrai que ñu ngi ci mars ba léegi peut-être parce que c'est important aussi Saint-Louis ñu ñu dem Saint-Louis xam naa ne waa Ndar moom ñu ngi lay déglu. xool un peu laka <laughs> nga leen di waajal pour élection locale yi di ñëw. ak lu mu mbëbët c'est pour bientôt lu mu mbëbët. mais mais dañu gis nga réponse bi le président Macky Sall dafa ni euh, mars parce que événement la bu amoon euh, début mars mu ne mu ne comprendre naa les jeunes je vous ai compris yow est-ce que gis nga si acte mu posé que changé na doxalin pour wane ni comprendre na li nga xam ni moo xewoon en début mars. dama am sama benn doyen ñu koy wax Babacar Sakho mu doon suñu suñu maître à penser ci biir FSDBJ. danaan wax ni chinois bi nee na ce que vous faites parle si fort qu'on n'entend plus ce que vous te da daan di répéter lu bare maanaam nee na li ngay jëf mu ngi wax wax ju bare joo xamee ne kenn déggatul li ngay wax loolu laa bëgg ñun ñëpp sénégalais yi ñu dox seetlu jëfi Macky Sall la lan la jëfam wax jëfam dafa ni yéen réew mu ndóol mu ñàkk ngeen dépensé mille milliards ci Covid 19 bi génnagu leen si jënd naa oto bu bees génnagu leen si dem naa wuti avion boo xamee ne ñu ngi laam-laamee naan cinquante soixante wala cent milliards la yemul ci loolu dugal naa leen ci ay wax ju bare joo xamee ne nee naa maa ngi def sama tournée économique donte président de la république la la ma ca jublu yëpp muy campagne boo xamee ni bu demee woon na nga xamee noonu la ko assises yi waxe woon tey jii dina tal leneen lu dul nekk ci àll bi di naan poussière bi waaye dina ittewoo toppatoo mbiru Sénégal waaw kii li muy jëf li muy wax mooy bu déggee tamit déggul dégg taataanul li li nga xam ne jëfam moom lay won mooy que ni ordonnancement ak sérieux ak rigueur bi muy laaj sénégalais yi moom nekku ci hmm. li mu wax li jëfam di génne mooy dégg gi mu waroon dégg ñàkk gi ak ndóol gi nga xamee ne moo tax sénégalais yi nekk ci mbedd mi sonn mu war leen a jaral keroog ñuy song Auchan yi song Total yi song mbir yi te la ëppoon ci song bi ñu doon song mooy jafe-jafe dund yi ñu nekk ci seen biir jàpp naa ni déggul loolu kon bu waxee ni dégg na sénégalais yi ci seeni coono dégg na sénégalais yi ci injustice yi ñuy dund dégg na sénégalais yi ci ñàkk transparence bi réew mi nekkee dégg na sénégalais yi ci parparloo ak tooñ bu jéggi dayoo gi muy tooñ opposition bi ndax ñii génne na leen réew mi ñii yóbbu na leen kaso ñenn ñu ngi nekk en instance dem kaso ñeneen ñi kenn xamatul fu dem ñeneen ñi dem nañu jaayi seen bopp fekki ko ces messages là montrent que ni c'est la corruption li ma bëgg par tous les moyens moo war a jàll jëf ji moo di man xaalisu Sénégal maa ciy priorité sama confort bopp moo ëpp doole bëgg-bëgg bi ñu am ci hôpital bi moo ëpp doole bëgg-bëgg bi ñu am ci emploi moo ëpp doole sécurité doomu Sénégal yi kon li muy jëf fatt na suñuy nopp ba li muy wax mënatuñ ko dégg. mais nag monsieur le ministre est-ce que jaaduwul dans un pays bu président jëlee ci jamonoy Covid juróom benn fukki milliards jagleel ko ay dund. yuy jël jagleel ko askan wi ci jamonoon pour jàppale leen ko wax nga ko léegi mille milliards yuy jël jàppale ko entreprise yi ak société yi pour ñu bañ a dàq seeni employé ci jamonoy crise est-ce que xel munta nangu itam pour des questions de sécurité pour des questions de prestige pour des questions aussi limiter ay dépenses yoo xam ne nee nañ ña ngi ko doon def ci révision technique gu avion bi ñu fi amoon te mu xaw a am ay jafe-jafe est-ce que xel jàppul mu war a yëkkati cinquante neuf milliards jënde ko aussi avion man defe naa lii problème bi fii mooy ñàkk communication bi parce que jamono ba ñuy jënd avion bi di signé accord bi en juin 2019 bu fekkoon yëgal nañ ko Sénégalais yi ba mu leer seen bët ci ginnaaw gi lañu Covid bi dal bi ñuy jënd fekk na Covid bi ñëwagul fekk na Covid bi xam nga xel mënoon na ko nangu ci ginnaaw gi la Covid bi ñëw bu Covid bi ñëwee président yëkkati lu ñu toll jagleel ko ay dund yu mu jagleel askan bi yëkkati mille milliards ku tudd mbiru avion ñun laa ay la yéwén <laughs> jënd na avion waaye bi askan bi soxlaa yëkkati na ay milliards jox leen jàppale leen man defe naa ñàkk communication bi surtout <laughs> ci ni gouvernement bi doxale moo waral coow li am mais du question jëndum avion bi en tant que tel ñàkkum communication mi ngi ci ndax devoir de transparence dafa di obligation ci président de la république muy benn opportunité wu aussi jënd avion bi mi ngi ci ndax donte Covid la ñu am ci at bii passé lu jiitu ñu ngi woon ci ñàkk ak bu gu tar bu Covid amul woon sax doyen sénégalais du mën a dégg ci noppam si jamono yi ñuy toll ak situation yi ñuy toll ñu nekkat kat ñu ngaa jëndi avion ndax gis nga waxtaan nañu léegi nii réviser avion. ci fonctionnalité avion la nekk moom ak moom ak moom ak doxu avion bi ñoo ànd. kon mënut a doon prétexte. que ñu ne loolu mooy justifier mbir mi ma indiwaat beneen affaire pour wax ne am na devoir de transparence ndax 1977. boo demee ci budget Sénégal 1977 di nga gis ci fi nga xamee ne rubrique bi concerné ministère de forces armées ñu bind ci en noir et blanc ay Fokker yoo xamee ni Sénégal def ko jënd ci at moom kon am na cinquante ans ca gannaaw on était encore plus transparent que tey jii lii ñuy def nii en deux mille vingt et li tax ñoom ñemewuñu ko tudd dafa am ñaari mbir yu tax benn xam nañ ne opportunité amu fi ñaar aussi gis nañu traitement bi ñuy defaloon maître Abdoulaye Wade ba mu nee dafa dugg ci avion ba ndax bind nañ fi livre sax ngir avion boobu jagleel ko avion bi dem na ba nga xamee ni pour mucc si moom Abdoulaye Wade dem na ba gàddu ay journaliste jëlee leen fii ci Sénégal ngir ñu dem toppi avion baak moteur baak nangam sangam ak nangam sangam. te avion boobu amoon accident daanaka boo xamee ni. ñëpp parce que gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis nga gis ngeen xam nga Babacar Momar affaire bi suñu jëloon tuuti rek ci Amérique daal di noppale bu ñuy woon dañuy engagé avion pour euh, deux mille trente. tey jii doo gis benn sénégalais bu ne déedéet xam nga lu tax parce que daf leen di leer ni. kii bu ne pour confort au président de la république ak sécurité dañ naan kii lu wér la. planifié na ko planifié na ko toppatoo nañ ko toppatoo ay cahier de charge am. moo tax gis nga lii feebar si ñun mooy la continuité du service public. dafa di loo xamee ni dañ ko manqué bu méttee métti ci suñu réew ñun ñi gis nga lii am solo ba am solo mooy que ni man de keroog bi mu wootee Covid 19. def naa ni Sénégal yëpp seede nañu opposition bi mboole seen. même Khalifa Sall mi nga xamee ni wóor na ko ni dañ koo génne ci kaso te ci ay tooñ kese lañ ko jëlee bañ ko woowee wuy si na kon ñii gàcce ngaalaam les gens ne pas